li nga xam ni moo war ci mu kàllaf bi ak li nga xam ne dafa xaram ci moom mu nekk parti bu am solo lool lool waxoon na ni mu kallaf mooy kan indi ci ay tënk wax ne mu kàllaf daal mooy képp koo xam ni euh, am nga am xel majeur nga bokk te amum xel majeur nga am ngam xel ki majeur mooy ki làq fukki at ak juróom-ñett wala ki nga xam ne làq ko sax waaye góor la waaye gént na tëj na di nelaw ba gént dara génn ci moom walla sax bu dee góor la mbaat jigéen sax na kawar ci ay poqotaanam wala ci naqam bu dee jigéen la wala sax mu gis ngànt li nga xam ne jigéen dana ko gis kullu taklifin bi chartil aqli ca borom ibn comme ni ñu ko jàngee danañ ñëw ci téere ba gën ko yaatal waaye waxoon na ci war ci mukallaf bi maa ngi toll woon ci wa yajibu alay xifzu jamii jawaarixi jawaarixi mastataa wax na ni war na ci mukallaf bi mu góor góorgóorlu ba wattu lépp loo xam ne ay cëram la yu ko yàlla bind ba du ci def lu ko yàlla tere cër yooya bu la nammee bëgg loo sax loo xam ni danga ko nar bëgg loole ngay bëgg nanga ko bëgg te yàlla tax bu la dee bañ loo nit mbaa dara nanga ko bañ ndax tere nga ko yàlla tere moo tax wa ay yuhibba lillah soo dee bëgg dara mbaa ngay bëgg kenn nanga ko bëgg te yàlla tax boo dee sopp nit nanga ko sopp te yàlla tax yàlla tax mooy nit ki sopp nga ko ndax nit ku am diine la nit ki sopp nga ko ndax nit ku am yërmande la nit ki sopp nga ko ndax nit ku laabir la waaye sopp nit ndax nit ku nit ñi xam parce que ni muy solo te col ga looloo kenn du ci sopp nit nit wala muy jëf jëf joo xam ne ca nga ko nekk lu xaraam loolu warul ci mu kal nit daal danga koy sopp te yàlla tax mooy muy def la yàlla bëgg waaye wa yub xid lahu boo ko dee bañit wala na nga bañ nit ka parce que dafay def lu safaanoo ak li yàlla bëgg boo dee bañ dara loola na fekk mu nekk lu yàlla bañ moo tax nga koy bañ wayarda lahu boo dee d'accord ci dara nanga ci d'accord te yàlla tax nanga ci d'accord te tax wa yaxdab lahu boo dee mere nit na nga mere nit ndax yàlla maam dafay jëf lu safaanoo ak li yàlla bëgg boo ko dee gërëm nanga ko gërëm te yàlla dongu tax ndax dafay def lu yàlla bëgg wayan dana war ci mukallaf bi te wa yaamuru bil maaruf bi bil yi ci lu baax wa yanha na nga dee tere anil munkar yi ci lu bon boo gisee nit kuy def lu safaanoo rawat na sa njaboot mbaa ko yilif na nga ko bàyyi loolee la muy def boo yilifee nit it na koy digal muy def lu baax loole lu baax ci nit la waaye wa yaxrumu dana wax xaraam alayhi ci mukallaf bi al kazibu muy wax lu dul dëgg maanaam muy fen ngeen baal ma kàddu gi fen mii nag daanaka ñaawteef gu yàlla di def dafa bokk ci la njëlbeenu jëf ñaawteef mooy fen mooy fen loolee lu war a wattandiku la ci jullit nit dana sàlloo fen comme ni ko yonent bi waxee nekk nit koo xam ne day wax lu dul dëgg di fen xataa yakuna indallahi kazzab ba ca yàlla sax dañuy wax naan diw kazzab diw fenkat bi comme musaylimatul kazzab yàlla nañ ci yàlla musal xaraam na ci mukallaf muy fen wal xiibatu xaraam na ci mu mukallaf muy jëw jëw lu xaraam la ci nit jëw mii nag bokk na ci ñun ñëpp suñu jafe-jafe waaye nañu jàpp ne bokk na ci li gën a bon ci ab jullit ndax yàlla wax na ci alquran ne waay waay wattandiku leen jëw ndax xanaa sibul kenn ci yéen maanaam yow mii di ma seetaan ndax sibuloo sa mbokk faatu ngay dagg ci yàppam di lekk nga ne xàkkay sib naa ko mu ne jëw na comme loolu rek wallaay moom loola sorewuñ ay yuhibbu ahadukum ay yakula laxma axihi mayitan fa karihtum nga ne xàkkay mu ne kon nag wattu wattaqullaha inna allaha tawaabu rahim yàlla nañ ci yàlla musal léeg-léeg da nga di wax nit ñu wax la nga ne moom kay li ñu wax moo li ñu wax si moom moo ko def boo ko de même bu ko defee boo koy wax boobu la tudd jëw bu ko deful tuddul jëw sos la tudd te loolu laa yées li nit ki def ci lu baax ci lu bon nga xam ko sa yoon nekku ca nëbbal ko ko suturaal ko ko boo ko ko waxee ci ginnaawam jëw la su dee defu ko yaa ko wax te defu ko loolu du jëw sës sos la kooko ñaara ci daje te loolu mooy yées ci àdduna wan namimatu bokk na ci li xaraam ci mu kàllafi mooy muy rambaaj rambaaj baaxul mooy di jaxase ay nit yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa dem ci ay ay armeel mu ne ci armeel yii yëgal nañ ma ne ñaar a ngi fi ñu ñuy mbugal kenn ki li mu def mooy da daan rambaaje diggante nit mi kacarees da daan tuur ndox te ferlu yàlla nañ musal wal kibru bokk na ci xaram ci mukallaf bi mooy ngand ngand lu mooy rëy rëylu nii laa mel nii laa tollu waaw man maa man nangam et cetera bokk na ci dagan man ci askan bu baax laa bokk man di woy sa loolu dagalul ci mukallaf wala uj bu naw jëf man kay maa dàq def nàngam ay ba ma defee nàngam loole day yóbbu nit ki al uj bu dafa bokk ci li gën a mën a yóbbu nit ki ci muy fen maanaam di wax loo xam ne nekkul ci moom moo tax toujours mbokk ci xaraam moo riyaa bokk na ci xaraam ci ab mukallaf mooy ngistal boo dee joxe dara faw nit ñi yëg ne joxe nga ko daawoo rajo yi daawoo télé yi wala boo amul boo toogee ne ay diw bu ma ko dimbaliwul woon bu ma ko féetewul woon sàngam bu ma de maa ko jox kër ga ba mu feebaree maa ko fajal loolu boo dee jaamu yàlla ñëpp xam ne lii ngay def loolu bokk na ci riyaa yal na jàll mu fal mooy ngistal wasumaatu mooy déggtal déggtal mooy euh, exemple boo doon jàng alxuraan tey da feex alxuraan ci kawe ba gaa yi ay dégg ko ak a neex baat ak a mën a jàng wala yu mel noonu bokk na ci xaraam ci mukallaf alxasad xasad bokk na ci yi nga xam ne dafa xaram ci ab mukallaf mu du ko def yonent bi def ni iñaan dana lekk jëf comme ni nga xam ne noonu la safara di lekkee matt mu poñet matt mu sew moo tax baaxul yàkkum wal xasad noonu la ko yonent bi waxee neen maa ngi leen di wattandikuloo iñaan ni ngeen gisee ndax iñaan dafay lekk jëf ju baax comme ni safara di lekkee mat matum poñet wal buxdu bokk na ci xaraam ci mukallaf mooy nay wa ruyatul fadli bokk na ci gën a xaraam ci mooy di xool nit ki bëtëb ngëneel xool nit jàpp ne kii sunu askan moo gën askanam xool nit jàpp ne yaa ko ëpp cër yaa ko nangam ci nangam la comme yi xew ci suñu société rek jàpp ne ñun ñun ñooy askan sàngam ñoo gën askan sàngam danaay wax ne wala ba gën a féex ñëpp waaw yàlla bind la bind saw askan bind diw bind diw moom sax xamul askan nga indi ko fa ca doyatul nga ne askan wii moo gën askan wii loolu kenn mësul gis moom wal hamzu bokk ne ci xaraam mooy li ñu tuddee euh, regeju mooy hamzu bokk mooy piis ngeen baal ma piis al hamzu wal moo di piis ak regeju reg piis mooy wax ak nit jëw nit ci ay bët loolu baaxul euh, lamzu mën nga ko tuddee sax leen tuddee moo bi léeg-léeg ci wolof wolof bu xoot la yooyee gënul mooy nit wan la ginnaaw nga def geste boo xam ne comme ni wan ne diw mi nàngam loolee bokk na ci xaram lii bokk na ci aw xuur woo xam ne ma ca safara woo xam ne ñaar ñii la ko yàlla wuutal waylun lil mutaffifin alladina ida iktaalu ala déedéet waylun li kulli humazatin lumaza waaw kay loolee muy alhumaza wala yàlla nañ ci yàlla musal wala ab wala abasu bokk na ci xaraam ci mukallaf yi mooy po fob bu boobaa dam yëba dugg ca carte ga dugg ca football bu doy waar dugg ca nekk ca sabar ga dugg ca nekk ca simb sa dugg ca nekk ca ndaw rabin nga nekk ca yii kenn xamul yi xew ci suñu société mu kàllaf bu koy def na nga xam ne yaa ngi dee def lu xaraam nga wat ni wa suxriyatu bokk na ci xaram ci mu kàllaf moo di di nit reetaanu ko yéene wala ngañ wala reetaanu doyadal laa yasxar qawma min qawmin loolee lu la ci ab mukallaf wat wa zina moom kenn du ko waxaale mooy njaalo bokk na ci nga xam ne dafa xaraam ci ab jullit mu di ko def waaye bokk na ci wan nazaru ilal ajnibiyati moo di xool ak jàmbur bu jigéen nga di ko xool bay bànneexu ci maanaam jigéen romb la nga xool ko lislaam may ni la xool bu njëkk ba nga xam ne la rëcc waaye bu jàllee na nga dawal sa bët waaye bañ continuer di ko xool ndax boo xasee am loo ci tegati xool gee dañ koy bind comme yaa ngi ma naan kon bu dee man jigéen la mucc naa si déedéet ku ne xam ne xew léegi ci suñu jigéen yaa ngi xool góor di am looy bàyyi xel ci moom ndax daa ami biceps daa nangam loolu aussi nañ jàpp ne ki nga xam ne daf koy def ndax yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne dafay ubbi buntu mooy yàlla moo tax lislaam loolu lay njëkk tëj mooy xool ko la njëkk a tere waaw surtout nuyu ko kenn waxaale ko toogaale ba kenn waxtaan moo tax mu teel ko wata lazu bi kalaamiha wax ak jigéen ju la ju ju ju la lewul di wax ak moom di bànneexu ci ay kàddoom ubbi waxtaan nañ ko jugu ca pour wa lu amwaali naasi bi xayri tiibi nafs lekk alalu nit ci lu dul ak teewu teeyu bakkenam maanaam nit ki bu la dee jox alalam daal na fekk ni moom euh, daf la ko jox ak xel mu dal nit ki am na problème nga yëg ne problème bii mën nga ci dara waaye nga koñ leen ba mu sës fexe ne moom daal faw ngeen jox ma nangam pour ma lijjanti loole fexe ban jox la ko yow mi ci tali bi taxaw nga xam ne policier nga gendarme nga arrêté nit fexe ba jël ci alalam loo xam ne wóor na la moom ko ma jox la ko ci dul ak teyu bakkan lu nga xam ne yaa ngi jël alal nit ci loo xam ne d'accord ci loole baaxul euh, dama indi boobu rek waaye mën naa ci indi fukk ak juróom wala lu ëpp loolu waxin la wal aklu bi shafaati mooy di lekk alalu nit ci ràmm lekk ci ràmm nee na la diw daa nekk yow am nga bunt boo mën def ba dimbali ko génn nga ne mën naa ko de mën naa wax diw mën naa wax diw ban génnee ko waaye faw ngeen jox ma dara bu boobaa ma génnee ko loolu benn la ca yooyu itam lu bari la nit am jafe-jafe ci këyit nga ne ko mën naa toppatoo këyit gi waaye faw nga jox ma nàngam voilà loolu du dul jeex aw bi diin wala di dundee diine diine ndax ñu ne kenn du ko dundee dañ koy dundal wa taxiru salaati yéexi julli an awqaatiha walif ca waxtu wa dafa xaram ci yow nga waxtu julli jot nga bañ julli ca waxtu wa te amuloo benn ngànt bu la tee wala yaxillu daganul na nga xam ne dagganul ci yow lahu ci mukallabi suxbatu faasiqin daganul ci yow ngay xaritoo ak ab kàccoor am kàccoor ab xarit eh, wala am xaritu kàccoor na nga jàpp ne dafa dagan dafa xaraam ci yow nit koo xam ne wóor na leen ko yàlla tere yépp daf koy def nga xam ko ci moom te naan sama xarit dama yàgg moom déedéet na nga xam ne lislaam li mu la tere mooy kooku war te nekk sa xarit xale bu jigéen ka am nga xarit bu jigéen boo xam ne li nga ko xamee mooy li tere moo xam day taxawaalu moo xam dafay euh, njaaloo moo xam dafay dem ci barab barab yi nga xam ne dafa yàlla daf ko tere loo xaritoog moom xaritoo ak moom xaritoo moom da nga jàpp ne en tant que jullit sa xaritoo su fekkee mënoo koo dimbale ba loolu mu dañ ca as ak moom sa xaritoo moom daa war a war a dakk su fekkee ne am nga yaakaar ne mën nga koo dimbale waxtaan ak moom ba delloo ko si baax na ndax lii li lislaam di bañ ci yow mooy sàggante dugg la ba moom mu influencé la ba nga fe influencé la ba nga fekk ko ci loolu muy nekk moo tax waru xaritoo moom moo tax mu ne la wala mu jaali satu waroo sax grand place u ak moom grand place boo xam ne yow fii ña fi daje nit ñu duñ wax lu baax nit ñu duñ def lu baax nit ñi leen yàlla tere la ñu nekk loolu yow waruloo fa du sa jotaay boo xam ne war nga fa toog li xëy na darurati lu dul ak lor kii xam nga ne kat góor jigéen la kii lesbienne la kii nangam la waroo waxtaan ak moom waroo xaritoo ak moom waroo waaye su fekkee tey oto bii yéen ñaar ko bokk danga dugg ci oto bi daañu nga arrêté yéeg mu arrêté yéeg yéen ñaar ko bokk kooku darul la amoo ci benn pexe hôpital bii ku ñëw fii ngay rang nga rang mu rang kooku mën loo ko dara kooku ngànt la boo xam ne lislaam dina la ko waaye baa lii bañ mooy di togg moom ci la kon mi ngi doon dafa xaram wala yatlubu bul sàkku ridaa al maxluqina bi suxtil xaaliq bul sàkku mukk ngërëmal koo xam dañ ko bind bay jot sànjuk suñu borom ci yow maanaam bëgg nit gërëm la ba yàlla jéppi la yàlla nañ ci yàlla musal ak ku mën a doon ci àdduna bul nag bul wut ngërëmam mukk ba tax la faat waxtu yàlla bul nangu mukk ngërëmal kenn sa jëkkër la ak lu mu la bëgg lu mu nekk sa jëkkër lu mu la yilif yilif yilif lépp loo xam ne lu la yàlla tere la sa jëkkër bu la ko def loowee da nga caa war a bañ da nga war a topp ci lépp suuf ko loo xam ne dafa safaanu ak li nga xam ne yàlla dala ko tere sa sa baay la da nga war a topp ci bépp ndigalam sa yaay la sauf que loo xam ne yàlla dala koo tere sa patron bi ngay liggéeyal la mën nga ko ci lépp waaye bul sàkku ngërëm mukk ba faat waxtu julli ba yàlla wala def loo xam ne yàlla dal ko tere sëp sëriñ la xataa bul sàpp sàkkulum la gërëmee ba yàlla jéppi la ndax yàlla kat qaala allahu subhanahu wa taala wallahu wa rasuluhu wa rasuluhu axaqu ay yarduuh yàlla suñu borom ak ab yonantam ñoo gën a yàlla fuuf ngeen sàkku seen ngërëm ci keneen ku mën doon in kaanu muminin bu fekkee ay jullit ngeen wa qaala alayhi salaam yonent bi salaa salaam nee na li maxluqin fi maasiyati alxaaliq bu kenn ci yéen di topp koo xam dañ ko bind bay mooy yàlla wala yaxillu daganul lahu ñeel mukallaf bi ay yafaala muy jëf fialan bépp jëf xataa yaalama lu dul dafa xam xukma allahi fiihi lu dul daa ci jëf jooje muy jëf maanaa danga war julli sa julli da ngaa war a góor góor lu ba xam ñi ngay jullee da ngaa war a joxe azaka da nga war a góor góor lu ba xam ni ngay joxe azaka dinaa jël benn exemple rek mooy Sénégal fii ku bëgg a takk jabar mën ngaa jaar ci yoon yëpp waaye kuy fase nu la neex ngay fase te fekk na ne fase lislaam daf ko wutal aw yoon jigéen ji nga xam ni sa soxna la nga takk ko nga dem ba taqali ko ak bëgg a taqali ko ak moom di ko fase na nga xam ne amuloo droit ci fase ko lu dul danga dafa gis réglam ba set ca si diggante bi àndaatuloo ak moom jaxasoo waatoo ak moom boo jaxasoo waatul ak moom foofa nga koy maye baatam maanaam xaar nga ko mu gis réglam ba set ba nga xam ne set na ba nga xam ko te yow siqatuloo ak moom boo ko yeewi nga yekk yeefee ko lu dul nag bu dee jigéen joo xam ne siqagoo ak moom kooku waxtu boo ko bëggee fase mën na nekk jigéen ji nga xam ne ëmb na kazaalika waxtu woo ko bëggee fase mën na nekk waaye koo xam ne mi ngi mi ngi ëmbul ànd ngeen séq nga gis ko ci moom kookee boo ko dee balaa nga koo fase loolee na am waxuñ ne nag fase mi tàbbiwul ah kay fase mi dafay tàbbi waaye dangaa fase ci li ñu tuddee fase bi daa fase nga fase mi tàbbi na waaye def nga loo xam ne diine dala ko tere nit ki ki nga fase ba noppi mun na damay ay mbokkam jël si ne kaay génn kër moom kay comme fase na loo fi def déedéet ki nga fase ba noppee warul génn kër ga te yow it waroo ko génne ay li ma njëkk wax sànq ne na booy fase na nga xaar ba iddam ja yaa ayyuhan nabiyyu ida tallaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna na ngeen takk ak gis nga la takk ba xam fan la setee balaa ngay jox soog moom nga dem su booba amee tamit laa tuxrijuhunna min buyutihinna bu leen génnee kër yi mukk tant que iddawuun ba seen iddamat maanaam fase naa la da ngay génn déedéet mukk bul waaye yow tamit bul génn laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna buñ génn kër ga te yéen tamit bu leen génne illaa ay yatina bi faaxishati mubayyina waaye nag bu fekkee dafa nekk di ñaawal par exemple di toroxal say waajur ni fitna sa kër ga wala dugal góor ci kër gi kooku moom jëratul xaar idda mën naa génn kër ga waaye ko bàyyi ci kër ga mu iddaw ba iddam da ngay dem jàngi idda na mi demee jàng ja aj yëpp moo tax bul jëf mukk ci diine loo xam ne xamuloo àtte ba nga ko nga ne man kat jànguma ko xawma ko mu ubbil la beneen bu nee la boo xamul wa yasala al ulama nee na nga dem nga laaj borom xam-xam bi nga xam ne xamul kon lislaam ubbi na la benn toog rek ne man affaire bi jànguma ko ma ko déedéet xamoo ko jàngoo ko demal nga laaj ki ko jàng mu xamal la ko wa yaqtadi tamuy roy maanaam maa ngi ci mukallaf ba tey bil muttabiina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa war ci mukallaf bi lépp looy def nga roy ci ca ña nga xam dañu topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul ci rek topp koo xam ne jàngul diina xam ko nga ne ko ñoo ñëm ne alladina yadulluna ala taatillah dañu leen di tegtal ci ngeen di topp yàlla wa yuxadiruna ñi leen di wattandikuloo mani tabi mani tibaa cheytaan leen wattandikuloo ngeen di topp yoonu cheytaan kon kookee mooy Euh, euh, sëriñ boo xam ne mat na ko wala kilifa bu mu mën a doon goo xam ne mat na ko wala yarda bul gërëm mukk mu ngi mukallaf bi li nafsihi bu bu mu gërëm mukk li nafsihi ci boppam bu kenn gërëm bopp maanaam bu kenn naago maa ko nga xam na nga xam ne radihu naago woon nag al muflisuuna mooy ñi nga xam dañu ne saisir ki ñu saisir mooy koo xam ne nekk na fii di julli di joxe azaka di dem màkk lu nekk mu def ko waaye mi ngi tuddee dëkkee ak nit ñi mi ngi dëkk ci di tooñ nit ñi lu ne mu defal leen ko ba xëy ëllëg yowmal xiyaam ñu daal di koy saisir saisir mooy ñi jël lam amoon ci lu baax lépp fayee ko ñi mu amee loon ay àq yonent bi firnde ko ci xadis maanaam boo amee àq nit sa yu bari balaa ñu lay bu la réglé ba dana ah yow kat ameloon nga nit par exemple ameel nga nit junni nañ ko ci fay ameel nga nañ ko ci fay ameel nga nit nangam nañ ko ci fay ba ñëpp mat bor yi yiw yi nga am jeex na bor yi des na ñu ne kat dañuy jël bàkkaari diw jox la moo tax wattu àq wattu tooñ baax yàlla nañ ci yàlla musal ñu ne ko mooy ñan mu ne almuflisun mu ne alladina daat amaaruhum mooy ñi nga xam ne sànq nañ amaaruhum seeni seen dund fi gayri taatillahi ci lu topp yàlla mu ne ñooñee fa yaa maa ngi yoo seen perte bi wayaa tuula bukaa'ihim maa ngi woo seen jooyaay yu yàgg yu ëllëg yowmal qiyaam yowmal qiyaamati yowmal kon nag ma ne maa ngi jeexal li muy mujjee mooy nasalullah ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu yàlla mu teen ay yuwaffiqanaa mu dimbali ñu dëppale ñu littibaaci sunnati nabiyina ci topp sunna suñu yonent wa shafianaa ak ki nga xam ne moo ñu ràmb ëllëg wa sayidina ak suñu sang boobee nga xam ne muhammadin muhammad salallahu alayhi wa yàlla nañu yàlla taas ci barkeem te yàlla xirtal ñu ci jëfee sunnaam ak topp yàlla wa ma zalika alaahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu